ay kuy mbër faaw nga laale xaadim sam laay waaw waaw li ñuy séntu doomu gar bi yaa ngi ci doomu yaayi baay samba ahmadu bamba borom jaam yéene ana ñi ko bëgg billaay xaadim sàmb neexu leenam waa walaay ni ki mu yéen ana ñi ko bëgg mu yéen ana ñi ko bëgg xaaye man de maa lay woo kaanu bërey saa ak 1000 tonnes kan lañ tuddee bis bi ñu ni xaadim sàmb balaay sa buri sëñ Mbakke maara maam asawaale mi ci naawel ku ñuy tuddee bi naaru baay badara sàmb kii taxaw baayam moo nekkoon caissier à la perception de Dakar Port en 1995 administration topp ko dara amul bokk ci jam-jam amul jam-jam ci bokk gi amu ko ci réew mi amu ko ci administration doomam la ñuy sargal tey fii ci hippodrome Ndiaw ma koddu Baye Samba félicitations c'est un pur sénégalais lamb ji dañoo bëgg ñaari mbër ngeen bëre ko ci fair play ndax ki nu tudde drapeau bi mooy le président mouvement Thiès solidarité Thiès solidarité moo am jom ngor nekk ca diine nekk ca ba pot solidarité jug Diourbel solidarité jug 14 raisons yi foo ci dem ñu ni Thiès solidarité kon xaarim ñu ngi lay jaajëfal bis nag tuutiwul yow lay tollool ñu ngi lay féliciter di la encourager di wax ni kontaan nañ ci yéen bu baax a baax Milton neen ko bëre ci fair play saamaan neen ko bëre ci fair play que le maire gagne Baye Samba félicitation ak staff bi nga àndal yëpp xaadim dañu guddal dangay dem fecc ci astrade ba toog ñu seetaan combat bi waaye balaa boobu xaadim Sénégal gépp dañ lay déglu à travers le monde entier ci réseaux sociaux yi donte une la ngay këtt sa kàddu vous avez la parole. waaw ah, jërëjëf Seck avant tout dañuy sant yàlla bu baax di julli ci yonent sallallahu alayhi di remercier le promoteur de la jeunesse muy Baye Samba di wax ne li mu def nii euh, dafa am solo ndaxte ñun yàlla dafa def nii te solidarité bi ñu taxawal bi ñu koy taxawal di ci liggéey dimbali ci néew doole moo tax a mais lii ci am yëpp dañ ci santaat yàlla bu baax te ñaax la rek dañ ci war a laxasaayu bu baax gën a góorlu te xam ne ñun am na leneen ak leneen lu ñu war kon maa ngi remercier waa Thiès solidarité ak délégation bi suñu ginnaaw amuñu ma seen fay di remercier Thiès waa yëpp le président Abdou Karim gis nga déplacement bu muy def fépp foo xam nii rek Khadim saam mi ngi fa mi ngi suñu wet di ma Massamba président pour solidarité muy Massall Gueye ànd ak famem ak une forte délégation ak ñoom ab Ablaye Ba Mohamed Ngom waa Thiès solidarité yëpp di remercier suma grand Sidaat Diop nekk xarit ci Youssou Ndour tey def déplacement ak suñu frère Ndiaga suñu sœur ñoom tutu ak délégation bu teew yëpp ak ñoom Moustapha Cissé mais bis bi li ma ci gën a neex mooy dafa am keneen ku ñu tuddee bis muy cee Yacine Diagne loolu moo ma ci gën a neex ndax kooku day sama mag di suma lépp nekk nit ku baax nit ku jàppale le DG de l'AIBD yàqalu ko dara loolu fu ñu dem bu ñu dajee ci bis war nañ ko mën a seede kon ñoo ngi sant ñëpp leen gërëm pii maa ngi lay remercier di remercier Seydou Nourou ak ñoom Thiam Tailleur vraiment taxawaay bi am na solo daal di santaat ñëpp yàlla nañu yàlla taxaw jaajëf. bi mooy sama première sortie cinquième maa ngi cinq combat bi mooy sama cinquième combat cinq victoire waaw bi mooy sama cinquième combat cinquième victoire grand laay mu ngi ne sama coach di sant sama menaceur nu Seck wër na wër amut ku jël avance bi mu ne ma 1000 tonnes jël na ko sa kanam laa ko ni jërëjëf sant naa la gërëm naa la parce que jàmbaar nga champion nga yow mi nu ngoo jël sama avance toog naa 200 xaw ma 300 sam papa feebar mais barki sëñ Bamba fii du sama place ci làmb ku ma xam man surtout euh, Baye Yirim Ndiaye maam Yirim Ndiaye ca Pirum Ndëri ak Madul Xule ñooy samay maam barki Seydina Mouhamed ñooy nijaay sama yaay waaw waaw Kara am na lu ma loo xam ne woon naa la drapeau Sëñ Xaadim première sortie waaw ma ne la drapeau Sëñ Xaadim man maa koy indi maa koy jël si ñëw fii indil ko siñ Xaadim ànd moom ñu feete drapeau bi mu ne ma man maa koy def ma ne ko kon baax na ma ne ko man may bi Sëñ Bamba di xëccoo drapeau Sëñ Bamba nga yóbbu ko lool du mënul ne bakkan bi laa ci teg barke Sëñ Bamba waaw